nataal yàlla sàkk nit teg ko ci tool bu rafet toolu àjjana aadama dafa waroon béy te wotu tool boobu yàlla ne aadama mën nga lekk ci meññeefu tool bi yépp waaye doo lekk ci garabu xam lu baax ak lu bon bi bés boo ko lekkee dinga dee yàlla xaritu aadama la woon ak awa yàlla lu baax rekk la leen bëggaloon lu bon bawowul ci yàlla bon ci seytaane lay jóge ñu koy woowe tamit iblis seytaane daa bëggaloon lu bon aadama ak awa moom noonu yàlla la woon ak aadama ak awa ci loolu mu ñëw jege ci awa jaarale ko ci melokaanu jaan seytaane wax boole ci ay fen ci awa mu ne aadama ak awa du ngeen dee bu ngeen laalee ci meññeefu garabu dee gi ci dëgg dingeen dem mel ni yàlla te du ngeen xam lu baax ak lu bon ci loolu awa déglu seytaane ba lekk ci garab bi ñu leen ayewoon may ci tamit jëkkëram aadama ak awa ñàkk dégg li yàlla ba lu bon li ñëw dugg ci seen biir xol jaarale ko ci ñàkk déggal yàlla ba lekk ci meññeef boobu yàlla daan na aawal aadama ak awa yàlla dàq leen fu sori kanamam léegi aadama ak awa xaajaloo ak yàlla ci loolu yépp yàlla bëgg na leen te mu ngi leen di wutal pexe ba dimbali leen